وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير لكم من منير لبه وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلازم ما أخزى وأساء قال الله تبارك وتعالى وما آتيكم الرسول فخذوه وقال تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فطوبى لمن أغز ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه ذلاما معتسون وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى القدر والضير وويل لمن لم يقص ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلاما من جاد الانتقاء وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا fa inna mufaaraqatahu tajurru ilaykum alaman wa kabada wa anhaakum an fi'li kulli ma lam yatabayyan lakum kawnuhu sawaaba fa innahu mimma yuwajjihu ila gayrikum al-ajra wa rida wa sawaaba ولا تطلبوا الكرم لغير التقوى فإن الكرم هو التقوى ولا تطلبوا العزة من غير العزيز المعز بجاه عبده رسوله العز فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميل يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتقوا الله حيث كنت man kaana yuminu billahi walyawmi alaaxiri falyaqul xayran aw liyasmut qad axbarani rasulullahi sallallahu alayhi bi aalihi wa saxbihi wa sallam wa baarak anna man taaba min ummatihi qabla mawtihi fa innahu yashfacu fihi cinda mumiiti maytihi wa inna man lam yatub minhum tawbatan nasuha faqad amarahu man wacadahu nasiha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 walhamdulillahi kasiira wa subhanallahi kasiira alhamdulillah alhamdulillah alladi jaala yowma al-iid yowma tawsiati wa tafriixi wal itlaaq والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فاحمدوا الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه السلام بجميع مقتفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعفق بفضل من جاد بفطرق فمن شكر الله تبارك وتعالى فإنه يظهر بكل ما من الخير يصفيه فاطلبوا فيه تبارك وتعالى yasrifu ila gayrikum dayra wa tuubu fiihi ilayhi tabaraka wa taala min jumlati al-isyaan fa innahu yaxfiru lakum wa yakuffu ila gayrikum dawi tugyaan wa tawajjahu ila rabbikum bilkitaabi wassunnati wal ijmaa yakfiikum man abaw fiihi ijtimaa bijaayi il qazawaati al murdiya sallallahu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 yàlla dimbal nañu ba tey ñu defe ko noona di dundal sunna sayyidina ibrahima ci nangul gi mu nanguloon sunu boroom ci dogal bi mu dogaloon ci moom te mooy ni ngeen ko xame mu digaloon ko mu rey doomam ji ismaayil mu nangu dogal ba lool doom ja nangu dogal ba lool waaye bi nga xamante bi nar na ko ba ba bëgg koo def yàlla mi nga xam ne mooy wu ñu njàqare mu wu ñu njàqareem yebal am xar xar moomee moom lañuy def ba dëgg ni muy dundal sunnatu Seydina Ibrahim lan lañ lan mooy tabaski tabaski mooy xar mi nga xamante ni bii dañ koy rey ci bisu fukkeelu fan bi ci weeru tabaski te luñ ci am mooy kawar bu nekk ci kawar yi xar mi lépp aw yiw la yowmal xiyaam kon muy loo xam ne dañ koy def ngir jaamu yàlla defuñ ko ngir aada lépp loo ci def yàlla nga ci jaamu yàlla nee na fépp lépp lu ci ne ci xar nga rey ko ngir moom yowmal xiyaamate yàlla da lay fay ci lenn lu ne lu tax ci xar mi yàlla def ci bind aw yiw waaye képp ku ko man nga def waaye képp ku ko mënut yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na ñaari xar benn bi mosam benn bi mu ne képp koo xam ne amuloo mënuloo ko wala woo ko ci sama xeet wi yéene waanaan la ci xar moomu kon ngeen xam ne tabaski sunna la su am solo soo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mosu ko bàyyi kon képp ku ko man nga def ko ci yàlla rek tax ko defee boo ko defee nga sarxe ci maye ci jox ci say dëkkandoo yaata ci say say waa kër bégal ci ñëpp ndax bisu mbégte la bisu xéewal la bisu jéggalante la bisu baalante la waaye bala may sori eh, niñ ko baaxoo defee xam ngeen ni jataayu taalibi la am nañ fi sunu kilifa bu fi yegg bu fi bu nu bokk eh, xéewal nu bokk ak ñoom tey bis bi muy Serigne Fallou moom Serigne Soy bi moom Serigne Touba mi ngi toog xam naa ne duma am lenn lu may ci waxati lu weesu nuyu ko di ko jotti luloo sunu nuyoo nun mbokki taalibi yi nekk France gépp mu jot lu ñu ko sëriñ Sidi Muxtaar ñi ñaan yàlla yàlla bàyyi ko fi ma ànd ko wér di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mourtala mi nga xam ne ginnaaw yàlla moo tax kër gi am yàlla yokk koy xéewal te dëgëral sëriñ Maamoor mi nga xam ne moo ko yoral moo ko yoral liggéey yàlla dimbale ko moom itam te dimbale bépp kilifa diine te may bépp taalibi boo xam ne mi ngi fi tey tey wuyoo ndigal te yàlla may ko jàmm may ko xéewal te yàlla jéggalu noo ngi jégalu ñëpp di baalu àll ñëpp baalu àq ñëpp yàlla ñuy yàlla boole jéggal kon damay daal di jox rek sëriñ bi mu daal di dénk taalibe yi su ko defee daal di ñaanal kon ñu def ko ni ñu ko defee Touba ñu ko defee Njaareem ñu ko defee fépp foo xam ne ay taalibe nga fa xutba bi ñu fi jàng nag mooy xutba bi nga xam ne mboolem fu ab taalibe nekk ci kër sëriñ Touba yi ci jàkka yi nga xam ne taalibe sëriñ Touba yi koy jiite moom lañ fi jàng kon sëriñ bi noonu rek lañ koy doxale ñu bàyyee la kàddu gi ak sa mbokk yi nga bokk nekkal ngeen dénk mbokk taalib yi loo xam ne danañ ci dolli ko ci ba déwén bisimilah